ki xam ni mooy doomu xalifa ba mooy doomu sut alxaaji Abdoulaye Niass parmi les sénégalais moo jóge ci daara indi di góorgóorlu di góorgóorlu indi journal doyul mu indi télévision jàmmoo ak réew mi yëpp doon kenn nag ci kii toog booba eggagul foofu ma yegg booba it chef de l' état déggagul chef de l' muy xaritam di soppeem tey jii nag ki xam ne kenn du xëccoog moom suñu bopp tabaraka wa taala jël ko waaye jël na jàmbaar nag jël na ko Sénégal yëpp wekk kilifa diine yëpp wekk ko ak chef d'état yëpp président de la république doomam ba nga ko sa wet mu tuddee ko mu xaddamu Cheikh Ahmed Tidiane bu mag ba ak kan ak Adi Niass mi xam ne portrait mooy ca dëgg-dëgg Sidi Lamine portrait mooy Hadi kon nu gërëm ak di la ci jëf ju rëy ji nga jëf famille bi yëpp a ngi mbokk yëpp a ngi nii xarit yëpp a ngi ak soppe yi ak àddina bi yëpp tey xam nun ni chef de l'état président de la république jaale si na mbokkam xaritam soppeem frère am Sidi Lamine Niass kon nag duñ def dara sàll lu dul bàyyi la ak kàddu gi jërëjëf euh, El Hadj Mansour Mbaye jërëjëf également Raj Majib Sène asalaamaaleykum mbokk yu tedd yi ma fi fekk ci kër suñu soppe don ku réew mi yëpp ràññee àdduna bi ràññee ko Sidi Lamine Niass rahmatullah ñaan yàlla bi nga xam ni mooy borom lépp di borom aljana sunu borom bi ko woo ci wetam wàcce yërmande ci kawam xare ko aljana loolu lay tàmbalee ginnaaw bu ma nuyoo famille bi jiital si kii di taam di Cheikh Amadou ak say rakk ak say yaay say tànt ak njaboot gi yëpp ànd itam ak ay soppeem yi fi teew di ay compagnon wax ngeen sëñ aadi wax ngeen itam notre ami Abdourahmane Camara directeur de publication bu Walf Quotidien ak euh, beneen doomu mbokkam beneen mbokkam Boucar Niang euh, ak personnel wu Walfadjri ak ñëpp ñi nga xam ne seeni soppe lañu ci turu réewum Sénégal yëpp laa fi ñëwee ndax en tant que président de la République ku toll ni si di génne àdduna dafay daal nekk une perte pour toute la nation nekk aussi en tant que doomu soxna une perte pour l'islam et pour toute la umma lii moo tax euh, lu mu xat-xat yónni naa premier ministre waaye man ci sama jëma bopp maa waroon ñëw keroog samedi dama fe ma ne leen euh, bu altine incha allahu dinaa ñëwal sama bopp seeti njaboot gi jaali si leen seen wér xam ni wax dëgg yàlla liggéey na ñu ko waxee bokk na si ñi nga xam ne ñu jàng arab xeex nañu seen àdduna ba wane ni enseignement boobu égal dignité la am ak njàngum français loolu wane na ko ci combat yi mu mëne yëpp ba taxawal groupe bi nga xam ne tey jii mooy groupe Walfadjri donc loolu c'est un héritage important euh, may seede ni ni ko Majib waxee ak Hadj lu jiitu may nekk président de la république ku joxasoo woon la woon ak man am ci boppam dox na dox yu bare bare ci sama palu keroog maa ngi koy fàttali ñi mu àndaloon adduna nag moom mooy dox rek léeg-léeg li mel nii léeg-léeg lii mel na waaye loolu du mos tere ñu def jugement ak témoignage bi war ci Sidi Lamine effort yi mu def pour émancipation presse libre ak presse privée euh, kon loolu dina nekk loo xam ne marqueur lay doon ci euh, développement presse bu Sénégal donc maa ngi masawu nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi te masawu njaboot gi euh, di leen wax ne ay défis yoo xam ne itam yéen a war a relever ces défis incha allah lépp lu ci war ci taxawaay dans le cadre de la démocratie ñun suñu taxawaay ci démocratie du mos delloo ginnaaw liberté de la presse développement de la presse privée waaw lu ci des nag mooy ñu ñaan yàlla nga xam ne moom aljana aljanna suñu borom xare ko aljanna te teg loxo si njaboot gi mu bàyyi ci ginnaaw donc euh, Cheikh yow ci loolu daal lay yemale kàddu yi te la ñaanal nga am kàttanu uuf ñëpp. ndax te yaay xalifa te c'est mission la yoo xam ne yàlla du si préparé kenn waaye nag comme du tàggatoo ça peut venir à tout moment waaw nga yokk muñ rek te uuf ñëpp kon loolu laa bëggoon wax di ñaan encore une fois boroom daal bi nga xam moom moom njëggal ak yërmande mu wàcce ko ci kii di seen wayjur muy Sidi Lamine yàlla xare ko aljanna lu ci des am na enveloppe pour famille bi léegi léegi nag lu dul jox doomam ji xaritam bii soppeem bii xanaa rek préciser lëf ni keroog boo nekkee ca morgue ba président de la république ma nga ca conseil ba waaye dafa dal di wax papa Samba téléphonel ba xam nu nu def ma daal di jël sama oto léegi fekk leen fu nu ne loolu it